jaajëfal ci bàyyi xel bi ñu ngi si mbedda bi fas yéene tourné benn émission boo xamante ne lu ñu neex def salaamaaleykum grand naka moom waa Cheikh yaa ngi cool mais seen koñ bi neex na de fu la neex taxaw naan café fu la neex def fu la neex yaa <laughs> neex na de ay dund xuut nii taxaw ci mbedd bi xam fii moom ñii di julli fee car rapide di diréeku xam nga ak suuf pont bi nii mu ne ak suuf bi nii xam nga mais Sidi nuyu naa la Tidiane maa ngi lay fay naka affaire mais ci loo ne doom day maa ngi baax sant yàlla di la wax suwaaye bienvenue au Parcelles Assainies waaye merci beaucoup waaye mais mais mais mais Sidi naka dëy bi naka journée bi tey ça se passe journée bi nag hmm. am naa ci benn am na affaire bu ndaw boo xam ne dafa léegi nii la ma arrivé Tidiane. muy lan <laughs> Tidiane tey ceebu keccax laa añee. Hmm. daay daay di daa mbaam na dox ci mbedd bi commencé miir. di nga miir kay. ma jënd tàppalaa ko deux cent trois cent boole ko jënd si trois cent naan lépp. saa maa ngi nii nekkaat en l'aise. bilaay walaay. teg ci sa kaas Café maa ngi nii sax xam nga Mhm. dañu bëgg a waxtaan quoi en tant que influenceur. Mhm. Sidi ak xale yu jigéen yi c'est comment. puusal foofu. non mënuñ jiyee puus parce que daf ñu intéressé Sidi. ku la xam xam ni gentleman nga. ku la xam xam ni Sidi foo ko fekk mu ngi takkaay chaîne xam génn jàpp gauche à oh, droite xam affaire yooyu noonu ma xool. xanju la benn ci benn ci suñu caméraman. pour man la merci beaucoup. lu ngeen ma dolli benn mille francs <laughs> dolli leen ma waay mais Sidi. waaw sa diggante ak yàlla Sidi. yaa ngi ci xale yi ou pas. xale yi nuru laay wala. parfois des fois nii rek xam nga man ay jigéen moom defe naa ni Tidjane loolu deuxième fois. <laughs> alors kii moom mooy Sidy tey dañ ko bëgg a découvrir loolu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan sur TikTok bu ngeen daan gis benn waay boo xamante ne daan kaas di dal ci kaw gars laa njëkk gis TikToker bu di dal ci kaw gars yi di kaas ne lii normalul lii nangam li nangam mais sauf que style bi mu ko doon defee moo neexoon parce que téléphone lay téye bu ñëwee yeew ne dafa am lu ko metti bu kaasee kaas ba kaasaat day door caméra bi kang kang kang waa mais booy waaw yow daa am lu ma jaaxal si yow lan la lu tax nga nekk TikTok di dóor sa téléphone bi nii rek gars yi bu ñu aimé di abonné di partager wax dëgg yàlla moom ma. Sidi da nga def box wala. jaar naa boxe. waaw parce que di nga naan dóore affaire yi mooy loolu noonu. def naa ci deux mois une semaine. léegi lan moo ñu jaaxal <laughs> yow gaa gaaw bàyyi de Sidi téléphone yi nga daan dóor wala dafa am lu daan baare wala danga nga daan naturellement nii quoi sa vient comme sa non baare wu ma dara damay ñëw nii rek xam nga. mais loolu sa téléphone mosut a yàqu. sama téléphone non non yàquwul yàquwul deful dara de. deful dara franchement. dinañ leen wan vidéo yi Sidi lan moo la dugal ci TikTok. TikTok parce que bokk nga ci aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo njëkk daan def ay vidéo sur sur waaw waaw waaw man nag boo xoolee réalisateur laa quoi. Hmm. waaw damay tourner ay clip affaire yooyu noonu mais hmm. TikTok. Hmm. xam nga moo xool man temps ma nekkee classe école. ay vidéo yooyu moo nekkoon sama xel. loolu moo tax sax moo gën a bàyyi jàng. ma ne pourquoi pas tamit ma ubbi compte YouTube ak TikTok commencé jouer quoi. noonu noonu laa mu nekk loo xamante ni c'était facile c'était pas trop compliqué. oui c'est parce que yow dangaa ngaa dëgërul fit. yow da ngay yeew gis benn problème am benn buzz am nga ñëw wax ci kaw gars yi te ragaloo ci dara ragaloo ci woon dara dara dara. Tidiane man noonu laay def sénégalais. est-ce que loolu tamit c'était c'était. loo xamante nii xëy na peut-être ragaloo ci woon danger bi nga koy def période boobu noonu. non ragaluma ci woon danger bi parce que sénégalais yi. Mhm. ñoo toll foo xam ne. Mhm. ku jàdd rek danga koy teg ci yoon. waaw mhm. ah, moo taxoon man man des fois damay toog nii nit nit nit nee ma Sidi. am na benn waaye bu def vidéo wax lii ak lii ak lii damaa def vidéo wax ak lii ak lii. su ma bu ngoonee damay woo sama gars yi ñu ñëw ñu ànd dem jouer vidéo ma wax lii ak lii ak lii publier. musoo ci am problème musoo ci am dara sans problème sans problème. sa digganteeg yeneen influenceurs yi parce que gis nañ ni gars yi dañuy def vidéo lu bëri seen biir. Mhm. mais yow rarement lañ lay ak ay nit nga def ñoom vidéo léegi sax tane na parce que yaa ngi commencé ubbeeku. si mais waral Sidi tënk boppam quoi. Sidi moom kan la doon defal vidéo man Fallou essayé vidéo. merci. waaw kooku sama copain la quoi. Mhm. Ah, maag moom daan nañ def ay vidéo lu bëri. Mhm. waaw mais xam nga rek léegi. <laughs> siiw na quoi. <laughs> kon yaay demee ah. da ngaa siiw ay wooyi. demul noonu boo bi de siiw léegi bàyyi la nii di ma dégg léegi laa jógee seen gaale sax problème bi. non amuñ benn problème ah chaque jour ñu ngi man hmm. ay ñoom Bada. ay ñoom Boos boo yëpp samay dañuy dañuy déggante chaque jour. mais lan moo waral nga jékki si ak lan moo waral gisatuñ la yéen ñaar quoi. mais xam nga rek des fois day jot yow nga dem. gis sa vidéo boobu moom moo siisu wala yaa siisu. non kenn siisante wu nag. mais xam nga léegi daa am ay affaire yu ci rax ci biir quoi ay nit yuy rax ci biir commencé. Ah, di créer di créer ay kii. comme man rek Bachir Bachir sama sama booy la woon quoi mais léegi tekki na léegi bëggatul def ak man vidéo tu vois. ay ñoom triple R ñooñu noonu ñoom samay gayan lañu woon mais léegi siiw nañ bàyyi ma. kenn ki moom mi ngi jël vol gars yi bu ñu suwee dañ lay bàyyi rek ay mbaam lañ <laughs> gars yi fii xoolal hmm. da ngay xaritoog ñoom nga nekk ñoom début mais bu ñu suwee bàyyi dañ lay def ay ay ay kii lañ ay mbaam sax mais man sama gayan la Mm-hmm. mais daal am na ay gars yu ne ci suuf quoi. waaw na waaw am gars yi nekk suuf quoi di kii. Mm-hmm. yaa ma gën a xam. Mm-hmm. mais nice ah. yéen a ngi sans ñu ngi di woo ci ay maison de production yéen a ngi joué ay série maam amuñu benn problème sànq laa jógee seen kër gi. amuñu benn problème mise à part vidéo TikTok yi yan projet ci yan projet lañ la mën a xaar yaa ngi ci ay yaa ngi waaj ay série yaa ngi créer ay link pour def ay clip vidéo et wala. waaw waaw parce que la fois passée am na benn maison de production. Mm-hmm. bu nekk fii nii Nord Foire. Mm-hmm. mu ne daf ma bëgg a jël ci série série bi ñu tuddoon sax xaw ma série bi ay ñoom Balla Gaye ñoo ñoo ci lañ bokk. Mm-hmm. mais nag xam naa ci foofu incha allah dinaa si jéem a focus ay série affaire ah sa mbir la de waaye xam naa ne de Sidy bis bu siiwee kenn dootul déggati xale jigéen ñi am nañ problème ay ñoom Binta ñii nii nii. yaa ngi wax ñoo xam ne xool boobu nu yaa ngi wax ñoo xam ne. soo xool ma fii. ma jox la après wala. kii bu tëj la. <laughs> Tidiane. kii robinet bu tëj la. ay soo déggoon lim la wax. non robinet bu tëj parce que daf laa tëjal kanam. comprendre sax. waa léegi noppi naa. waaw def nii mais Tidiane. Uh-huh. avant tout damay gars ñu ngi lay jàppale quoi parce que inter 18 laa dëkk. Hmm. mais inter 12 ñu bëri fo ñooñu ñu bëri dañoo hmm. foog ne Sidi inter 12 mais alors que hmm. inter 18 laa dëkk. parce que inter 12 dama fa yoo xam ne ay rapport lañ mais dañ may jàppale. dañ may jàppale carrément sax. doole waaw cartel du nord lañ tudd. ñoom général King. ñoom Sitaf ñoom Carbazé ah ñoom Zokila ñoom Prince. mais seen mbër mi lan moo tax lu bay. lan moo tax seen mbër bi jéggi saaga rek moom bëgg nekk benn oustaz si dëkk bi. Modou waaw. léegi daa yore daara di jàngale <laughs> Moodu daa <laughs> Moodu daa yore da mbay Moodu daa yore daara wala lan la boo ñaa man koy ah? gis muy wax xam man booy man waa Pikin eh. dafa am ay xarit waa Pikin bëgguma dal seen kaw mais bëgguma dal seen kaw de mais seen mbër bi moo jég saaga moom bëgg a defoo moom oustaz man moo jaaxal nit ñi kilifa la roi des la non mais attends parce que talu nekk Tidiane dépassé nañ loolu. li léegi ñun ay ko ay ay roi des arènes lañ. non dafa bàyyi bëre wala bàyyiwul bëre. bëre. waaw kon lan la. c'est quoi le problème Boy Niang moo bëgg a jël avance su Modou Lo. Boy Niang waaw. Ah, loolu dara la ay ñoom Lac de Guiers. la kooku moom soxlawuñ ko. Hmm. waaw yàqkatu làmb la. Lac de Guiers. ragaluma la de. yàqkatu làmb nga. day gaaw na ci gaaw na ci wàccee nit de. en tout gaaw na ci wàccee nit de. gaaw na ci wàccee nit trop. <laughs> leer laa la yàq làmb. Eh. mais kan nga gis na tey jii moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy mbër bi ñu war a jox actuellement. Euh, seen seen seen seen mbër mu di Modou Lo. kan la mérito instant bi ni Boy Niang hmm. waaw. Boy man Boy Niang gis quoi. pour ngeen faj seen mer quoi. Boy Niang parce que ay Ama Baldé. Sandra hmm. passera quoi. <laughs> Sidi barki yàlla sérieux léegi Sidi bon duñ la peut-être. duñ la duñ la teelu yàgg dañ bëggoon xam benn question Sidi mhm. en tant que góor yàlla <clears throat> nga am soxna tukki lu yàgg ñëw bett beneen góor yàlla ci moom ñuy seq lan mooy doon sa boobu kaa noo ko nar a régler sama jabar <laughs> fere ci ay million ba fi dem tukki ñëw fekk ak ñëw fekk ak beneen góor war a def hmm. <laughs> damay dem ci frigo bi xëcc leen si jox leen ñu naan xel leen ndox ñu naan ba ñu naan ba man ma leen naan ngeen ba pare <laughs> <laughs> léegi nga tuubal leen mu tuubal ne leen bonne chance du ma la dóor du ma la lamul pas la guerre mais mais mais ku góor ki àdduna bu yàllaa ko moom de ku góor ki noo ko nar a def ku góor ki ku góor ki du ma ko def dara sa diggante ak yàlla da ngay mu sedd ufu la espiram toll ah yow bëri nga yërmande de ay lay la si sa laa sant no sa diggante yàlla non bett sa jabar bu lew nga tukki ñëw fekk benn góor yàlla ci kaw. mais attends bu nekkee sama xarit la ma koy rey de. bu dee sa gën da koy rey. waaw waaw. ok exemple benn fàllu nii. ok ba fekk ak sama gel. mu mu mu kii. dóor góon de. nga dóor ko góon. laa ilaa. léegi yow bu fekkente ni sa jabar. Mhm. contraire bi la moom moo la ci kaw beneen jigéen mu nekk gaynam. waaw. Ah. yow nan lañ la war a def. man na lañ ma war a def. <laughs> Ah. nañ ma bàyyi ma dem. xale bu jigéen bi na ma bàyyi na ma fase. yow yaay <laughs> yow yaay moo tax yow. nangu woo baale yow nga bëgg ñu baal la mais mënul nekk si. ah mais tamit la vérité. xale bu jigéen bi lan la mu war a def lu dul baal ma. ah bilaay góor a bëgg lu yomb. daal moom bu ko neexee invité jigéen non ñun ay ventilo leen dañoo féex. ay lan ay ventilo leen dañoo féex de. léegi yi dañoo féex de Tijaan. contraire bu fekkente ni sa doom. <clears throat> moom nga bett beneen góor yàlla di si daawur ci kawam di. sama doom di bànneexu. Eh, eh, Tijaan loolu moom da hmm. nekk ci doomu jàmbur yow. musal foofu su dee wax sa diggante yàlla damaa ñaan yàlla. nekkoo ci doomu jàmbur yi. déedéet mukk de la vie. sa diggante yàlla déedéet. Ah. jaar man yee man ñeseen laa man yee xaw ma yii. Ah, ah, man su ma amee doom doom bu góor. Hmm. je l'ai programmé góor la Baye Niass laa koy tuddee. parce que man je tiijaan Tidiane je ma lu xaram xaw ma lu kii quoi macha xaw ma lu xaraam. xaw ma sa vidéo yi may gis taay <laughs> wadal fay na maa ngi jot ay message <laughs> mais loolu jotoo ci menace. mais si loolu noo ko mën a xalaatee. loolu loolu c'est c'est quoi Instagram mu am 45 millions de vues Instagram. am kuy dox. waddal tàngal bi nga si sigi xool la nga xool ko mu sëgg di ko for nga ne ci ginnaawam naan tàcc ah, tàcc ah, tàcc ah, mais loolu luñ ko mën a esprit esprit gars yi <laughs> moo ñaaw rek. mais yow léegi yow bi nga koy def ban message nga ci bëggoon nga ci bëggoon wala da nga ko doon def pour roubé parce que man xam naa ne roubé la xam naa ne roubé la ci nag yow contexte bi bi gars yi toll ñii eh, yow nga ñëw nekk di def loolu noonu mais Sidi. Sidi buñ la ci tëjoon yaa tooñ sa bopp de. yaa dugal sa bopp ci problème. parce que loolu. yàggoon naa ko bëgg jouer mais hmm? xalaat bi si boppam ak yow xaw xóot yow wala dañ laa digal pour nga génne ko période boobu noonu pour nga mën ci am buzz. non parce que booy itam yenn saa def de. ah buzz. di jar am na benn vidéo bu mu fi defoon ma yëg si kaw garab. Ah. <laughs> di ñàng ñàngul noonu. <laughs> boobu daa de mais sa vidéo yi nga doon def ci koor gi looloo ma doon rey <laughs> mais la moo tax nga jëg saako pause yooyu noonu. te pourtant concept yu nice la woon. c'est que nag fan yi tournage clip yi moo ma xaw a agressé. Ah. moo de mais quand même li ngeen li ngeen di li ngeen di def ci ngeen nekk noonu yéen a ngi ci gis seen bopp quoi. seen bopp. ñu ngi hmm. gis suñu bopp xaalis baa ngi génn. ngi sant yàlla daal en tout cas on est bien eh, daal. yéen ñii waaw. Ah, mais daal yàlla baax na. waaw hmm. ah, baax na kon ñu bàyyi la nga. ma tàggatoo léegi euh, ñu lay seetaan. sama gars yi. <laughs> Eh, waaw maa ngi leen nuyu di leen di leen gërëm. Sidi tegoo fi lu leer de Sidi. Eh, ñu ñëw ci. télé Sénégal moo ñëw ba parcelle. Hmm. lu jafe nag ñëw seeti Sidi. barke Rasulullah. et puis ñu koy ñu koy woo mu ñuy mu ñuy teg xel. non oh, leen man eh. télé du ma leen def loolu. parce que loolu vous êtes quelqu'un dans le pays ku ko ci invité ti ku ko ci invité ti sol daal yu dëgër rek. xam ne di nga xool waaye bu leen wax loolu. <laughs> maa leen sant di leen gërëmaa yow hmm. Bachir. Bachir moom bi. defe naa la. gis nee na nee na léegi nee na léegi yéen ay influenceurs yu ndaw yi parce que demoo leen du euh, demoo leen Qatar moom neen dem na Qatar nee na yéen ay influenceurs yu ndaw yi man maa ngi waaj a dem Canada fekk ma fa <laughs> ci sedd ba fekk ma fa <laughs> du dem Canada parce que ñëwewul ndox du sangu ñëwewul lu sedd këyitu soleil sa yoru ko <laughs> këyitu journal sa yoru ko journal sa yoru ko tàggatool ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy say abonné waaw waaw waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi nuyu sama yaay bu baax di nuyu sama papa di nuyu samay mag di nuyu waa Parcelles Assainies unité 12 maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax waa quartier du nord ñu ngi sama ginaaw du ma leen mës a fàtte ma dem yéen laay bëggee maa leen di sant bu baax di leen nuyu di leen gërëm mhm. di nuyu nag sama xarit bi tiijaan waaw Tidiane ngi yow yàlla ñu boole Tidiane borom baax la xam nga rek adduna nu di la wax ne daal yow sama doom nga borom baax moo xool est tellement content quoi <laughs> bilaay walaay saa mënu wax lépp quoi Codana yow sama gayeen nga alors ça a été un plaisir ñëw seet si woon ko fi nga xamante ni moom moo di Parcelles Assainies waxtaan ak moom émission la boo xamante ni sax on peut dire on s'attendait à plus de ça mais dañuy defaat lu gën a garaaw lii parce que Sidi Sidi askan wi la Sidi wu Sénégal la donc euh, di leen jaajëfal jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi doon bàyyi xel chaine bi Télé Sénégal TV la abonnez-vous waaw pour ay trucs yu lourd luur lourd jërë ngeen jëf